fi daje tey euh, acteurs société civile yi ñoo fi dajaloo euh, ngir euh, saytu politique développement bu Sénégal la politique économique et sociale bu Sénégal naam liggéey nañ si secteur yépp si secteur yi nga xam ne moo moo ëmb politique publique bu Sénégal yépp liggéey nañ ci waaye am na yu gën a si yoo xam ne gën nañ ci gën nañ ko xool lu mel ni xëyu ndaw ñi ah, parce que gis nañ jafe-jafe yi si am Euh, si xëy ndaw yi ñuy bi ñu xamee ne li ëpp si population bi ay ndaw la 75 pour cent euh, ak jafe-jafe yu ñu am ñu gis euh, ñiy dem si gaal yi di si dee yooyu yëpp dina tax ñu gën a xool loolu ngeen gën si mën a jox ay recommandation yi nga xam ne dina mën a saafara loolu.